ngir jox ko information moo tax moom laa sëni gaañi saaxo nee na mbir mi li ko waral jafe-jafe yi nga xamante ni moom laa amoon ak Serigne Mbaye Thiam moo taxoon ñu daal di may dàq bi ñu ko laajee na ko ndax bi ñu la dàqee frustré nga maanaam mer nga nee na déedéet la ko waral bokk na ci lu toll ci fukk ak juróom ci ay millions doomu réewum Sénégal Macky Sall tànn ma ci kon bu ñu demee ba jëli ma fa wuruma def lu sant yàlla daan nay wax ne ci kër googe di ONAS def na fa ab bilan boo xam ne bu mucc ayib la loolee sax moo tax bailleur de jamono ji daw di wut ci Sénégal ngir liggéey ak moom ci lu jëm ci wàllum ONAS wax na ci projet BDAN ak yeneen projet yoo xamante ni fekk na ko ci kër ko gi de liggéey ba nga xam ne def na ko fa wax na ne assainissement secteur la boo xam ne bu jafe-jafe la yéen kaay gi du l'Observateur Vox Populi xëy dañu xibaar naan ci week-end bi am na ab conférence religieuse boo xam ne doon na am sa Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye ak Amadou Ba ñoom ñaar ñoom fa daje waaye nag defante nañu fa ba seen xol sedd ndax Mbaye Ndiaye ne na ko Amadou Ba moytul ñi nga xam ne maanaam ñoo lay jey di la pousse ngir na nga jàmmarloo ak Macky Sall Amadou Ba na ko Mbaye il faut na nga may ma ma concurrence la ci wetu Macky Sall yéen a kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibara naan ñu ñi nga xamante ni ñoo ànd ak euh, maître Sidiki Kaba dëkk ca Tamba ak ñu ànd ak Mamadou Kassé mi jiite si kab dëkk ci Tamba ab panel cogère la ñu fa doon amal waaye nag jàppante bu doy moo fa mujjee am yéen a kaay gi de la Soleil mi di président Macky Sall nee semaine bii nga xam ne moom la ñu nekk le recrutement ndaw ñi di commencé Macky Sall sëkkatal na gouvernement bu Sénégal ngir ni financé nañ leen ci deera ne mooy liste bi bu ko defee ñëpp teg seen bët xam na lépp leer na yërekaay gi de la xëy dañu xibaar naan ñu Amadou Diarra maire bu Pikine Nord bi nga xam ne moo nekkoon PDS te élection présidentielle 2019 mu àndoon ak maître Madické Niang moom Amadou Diarra maire bu Pikine Nord fekki na Macky Sall maanaam na dem na ca APR yërekaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Mamadou Ndoye mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon secrétaire général bu LD daan nay la jàppee boppam yërekaay gi CEDEAO daan nañuy wax ci fichier électoral bi nee nañu fichier électoral bi maanaam fichier la boo xamante ni bu fiable la te opposition bi nga xam ne ñoo fi nekk di caaxaan dañu ko war a bàyyi nee nañu opposition bi dafay caaxaan opposition capricieuse opposition irresponsable waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu opposition bi caay caaxaan ak tappale si la ñu nekk yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu duwaan bu kër yip jàpp na ay médicament yoo xam ne bi ñu ko xaymaa toll na si benn milliard yu fekk juróomi téeméeri million yéen a kaay gi ne ne tension bu mag soo muytulee dina am ca Mbambilor ca Kër Massara ca Yëmbal Sud ca Malika ca Buna la ko waral mooy découpage administratif bi nga xam ne daan nañu koy sumba yéene kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Sambo nee na gaay yi nañu def ndànk ci découpage bi na ko tuddee le découpage de tous les dangers de compte ñenn ñi jàpp nañ moo am diggante Omar Gueye ak maire bu Mbambilor journal bi nee na Omar nag lii nga xamante ni def na ko mbir mi nag tegiwul fenn ndax moom da koo def séddale bukki bi bukki biir njuur bi sàmb bii ki yaayam de ndax mboolem ne ay recette fiscale Bambilor Omar Gueye daf koo dagg daal di koy sédd boppam ci Sangalkam loole nag moo tax maire bu Bambilor lànk ba tëdd sa naaj waay yéene kaay gi dalee si ko Serigne Moustapha Sy daat nay wax ne jamono ji amul kenn ku ko sut ci wàllum diine ci réew mi moo tax nag nee na kenn kese maanaam moo nekkoon kilifaama di Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum nee na fi mu ne nii gisul kenn koo xam na yore naa ab ba war a mën a nekk kilifaama yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu direction groupe mi network daan nay génne ab communiqué indi ay ci ay xibaar yoo xam ne fan yi ñu génn ma ngi jàba jonge ne ñaari stagiaire dañu leen a dàq te la tax ñu dàq li na dañoo estati jafe-jafe yi nga xamante ni moom la taskatu xabaar yi da am ci rédaction yi ci bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagle liberté de presse ñaari taskatu xabaar yooyu nag nekkoon ay stagiaire kenn ki Paul Pascal da Silva la tudd kenn ki Cheikh Tidiane John direction réew mi network ñoom nag nee nañu xibaar yooyu nga xamante ni ñoo koy fësal investisseurs am doon nañ ci si publicité li nga xam ne mooy toogaanu ñaxtu bi nga xam ne taskatu xabaar yëpp bëggoon nañu ko amala ñoom nag daat nañuy leeral nee na ñooñu nga xamante ne ay stagiaire la ñu woon ba stage bi jeexee jox nañ leen seeni attestation yéen a gi dee sat xëy dañu xibaar naan ñu championnat bu France jamono ji Paris germain ma ngi gën di sori te ñi nga xam ne ñooy waa Lille la soo muy tuulee dimanche bi nga xam ne moom